إن أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما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 sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin amma baadu fa hada alyowm yowm alciid li kulli muminin muslimin muxsinin said fashkuru llaha tabaraka wa taala fihi ala kawnihi sururan li nabi wa liman yaxtafihi salla wa salama alayhi llahu fi alihi wa sahbihi wa kulli man talaa وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال بوجه الله تعالى القائد أحذركم فيه وبعده ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخسى وأساء قال الله تبارك وتعالى wa ma aataakum rasulu fa xusuux wa qaala tabaraka wa taala fa man yaxmal misqaala zaratin xayran yarax fa tuuba liman axasa ma ataa bihi rasul alayhi bi alihi wa saxbihi salaama muxtisul lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min azul subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu boobu sëriñ Abdourahman mi di ñaan sunu boroom defal ko ak wér woyofal ko yan bi itam yéen yi nga xam ne kilifaam yi yi ko fi jiitu amoon nañ ko ak yéen yi boppam yépp mu eggale ko ci jàmm ak salaam ñu nuyu bokk yépp ak njabootam gépp li fi teew di leen ziyaare bu baax a baax kilifa gu baax gi fi bàyyi ko fat yi muy Seex Abdu Sëriñ Abdul Fatah ñaan sunu boroom yokk ay leeram ak i ngërëmam moo ko magam ju tedd ja sëñ Mouhamed Mbakke bokki taalibe yi noo ngi leen di baalu àq bu baax di leen nuyu gannaaw loolu nag sëriñ bi nee na ngeen maase ci sant yàlla ci bis bi ndax li muy mbégum yonente bi sallallahu alayhi wa nee na mi ngi leen di dénk ci bis bi ak ginnaaw bis bi ngeen jàpp li ñu leen tànnal ndax moo boole texe yépp nee na mi ngi leen di moytandikuloo itam ci bis bi ak ginnaaw bis bi li ñu leen tànnalut ndax ay texe di rek la leen di jural mu dellu wax ne li leen sama ndaw lii indil na ngeen ci jàpp te loolu mooy diine diine nag ñetti xaaj la muy liimaan lislaam lihsaan gëm yàlla sunu boroom gëm ne sàkk na ay malaayika wàcc na ay yonente wàcc na ay téere maanaam yónni na ay yonente wàcc na ay téere gëm bis penc ne dana ñëw amul benn sikk sàkka gëm dogal yàlla xam ne lu am ak num ak num amee ak fu mu mën a amee sunu boroom moo ko amal ci kattanam ak coobareem du jëfi kenn xaajub ñaareel bi ci diine mooy lislaam lislaam nag juróomi ponk la ba ci njëkk mooy seede ne mooy ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah muy ñaari baat yoo xam ne sëriñ bi nee na lépp luy génn ciw làmmiñ moo ci gën képp ku sax di ko tudd itam te di ko teewlu nee na da nga te doo gis lenn loola naqari ponkub ñaareel bi di julli juróom julli nag bu bis penc ba moom la njëkk a seet bu jagee ñu jàpp ne lépp jag na bu jagul ñu jàpp ne dara jagut sëriñ bi mas naa julli gee sëlmal wax ne dama ne képp koo xam ne julli gi da koo soxlaal walif mbir yi dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi képp koo xam ne nag mbir yi da ko soxlaal walif julli gi du jariñu ci julli gi du jariñu ci du jariñu ci mbir yi nee na jaamu yàlla mooy liggéey bi nu sunu borom sant aada yi dañ koy dimbalikoo rek ci jaamu gi ponkub ñetteel bi di ramadan wóor weeru koor bu ñeenteel bi di azeka wërsëg bi nga xam ne yàlla moo la ko jox xañ ko sa moroom nela la boo matee lim sàngam na nga ca coppati nangam joxal ma ko diw ak diw ak diw nga xam ne yàlla moo la ko jox sant la digal la nga def loolu boo ko defee mu barkeel alal ja sàmmal la ko boo ko defut yéen defut itam nag alal ja du sàmm te barke du ca am itam fonkub juróomeel bi de xaj makka képp koo xam ne yàlla man loo na la ko farata ci yow nga dem aji aji makka noo ngi ziyaare sunu mbokki jullit yi nekk foofee ca makka di ñaan sunu boroom nangul leen te dimbale leen bañ delluwaat fa ñu bàyyi ko woon xaajub ñaareel bi ci diine mooy lixsaan lixsaan nag mooy lépp looy def mbaa nga di ko wax yàlla rekk tax ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog suñu boroom sëriñ bi wax ne liimaan ak lislaam ak lixsaan ñetti fas lañu yoo xam ne ku leen war te wàccoo leen fu ma mën a ne maanaam fu ma ne danga ma fa fekk bokk yi ñun ñi ñëpp de bëgg sëriñ bi rek moo nu fi ba moo nu fi dajale itam ku ne ci noonu ak bëggam rek ngay dàkk ma leen di xamal nag déggu noddu bàyyi mbooleem loo nekkoon ñëw ci jumaa ji julee si fi lu ko gën a nekk bëggug sëriñ bi amut jaam yàlla rekk moo tax ñu def ko fi toggoo ci coono yi nga xam ne toggoo nañ ko ci kon nag doon na rafet lool doon na jekk lool rëyaayu dëkk bi feeñ ci jumaa ji ci waxtu yépp muy barab boo xam ne day wane jëmm yi ko fi def ni ñu toll ak li leen seen boroom jaral di wane itam màggaayu ki ñu ko fi defal muy suñ boroom li may tëj nag mooy waru dëkk bi Taayif boo xam ne Cheikh Moustapha moo ko sos te yàllay kese tax mu sos ko ñim àndaloon nef itam yàllay kese moo leen moo moo moo moo leen boole woon yàlla rek lañ doon wut ci moom nun itam ci ñooñee lañ bàyyi ko loolu la la ñooñee bëggoon rek moom lañ bëgg lañuy bañ moom lañ war a moom lañ war a bañ kon ku ne ci noonu war naa doon ab sàmm boppam ba lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg ko ci dëkk bi mu moytu loola bàyyikoo ci moom loolu mooy kàddu yi ñu ci doon sànni noo balu àq ñëpp.